déposé ñu dé mu déposé ko ba pare jël nadda da ngeen rawante raw nañ leen nangu leen amul tubaab amul leen xati baaw faywul bis bu ngeen ñemee booy boo ngeen teglu ko xadisa booy boo ngeen teglu ko dana rawaat grand prix dana rawaat grand prix sax da koy raw non gars yi seen course toujours nii la quoi dëkkale bi métti na dëkkale bi métti na ba xeex ci tey lan ngeen gis bon fasu saxir yëpp daanan lañ mais métti baaw ba gis mu daw lii su dawaa ñaari dimanche ba tàng du neex a benn baaw bu fi daa amee ñaari dimanche ba tàng du neex a raw. rawante bi neex na neex na trop mais li ma ciy xam mooy tey bu Xadija def woon li mu def biti raw leen parce gaaw na man naa daw mais nag système mooy rawante lool la rek raw moo ci am solo raw nañ ko voilà. <laughs> non non dama ni Momar moom tey dafa dawal erreur tey moom dafa juum carrément am na loo xam ne daana ko def tey da koo bàyyi daa bàyyi man nam indi beneen mani beneen euh, façon dawlin ñu raw ko raw bu yéen lan ngeen ko gisee en tant que amateur yi. xeex bi moom dafa ñaaw kenn rafetlu ko parce que sport ak xeex ñu xam la ñoom dañ daan raw tey dañoo def dañoo dawal ñu rawleen leen dañoo waroon accepter xam ni dañ leen a raw mais xeex moom mën naa ñàkk. fii course bi ilimaan amatu fi tey da ngay raw suba ñu raw la wasalaam je vous waaw kontaan ci course bi rek gis ne xale yi dawal rek di yedd xale yi xeex na bu ñu xeex ndax ilimaan amatul ku raw tey ba léegi ñu raw la. baaw moo leen mag ñun biti baaw lan baax Louga Jilder bii nii Jilder nekkeen koo xamante xam course la mais jil tey bi bari lool ki nga xamante ne mooy professeur Sarr Thiam Rahin raw mais tamit Pape Ndiaye démérité ndax da biti bu waa raw na fi ñaata yoon raw bi grand bi biti yi ba léegi parce mooy raw kon ñu ko visité baax ji loo gisee loolu non mais course bu rafet te neex rek mais li koy bëgg a yàq moom mooy euh, genre supporters yi li sport bokku ci lii ndax rawantal lañu wax da ngay raw tey bu suwaañu raw la Béti Baaw démérité cinq pass contre benn mu jël deuxième lu ngeen bëgg y' a pas mieux ah ko am jël waaw li ñu def course bi bu ñu ko doon daw mille fois tamit moom xaalisam du jeex ndax cinq pass lay indi saxir indi euh, papis indi benn mais loolu ak la mën a demee noonu la rek la mën a demee parce que course moom mënut a woon demee leneen lu nii waaw parce que course moom amul xuloo amul xeex rawante la buñ la rawee nga yëkkati jox sa loxo ki nga ki la raw ngeen ko félicitation mun la dem loolu laa xam ci course mais lii ma gis nii man neexuma waaw